di jow rattrapage. <laughs> du leen ko nag man bëgg naa sans am na. moom ngeen di def session euh, de rattrapage. waaw kay session rattrapage lañu. kaw pénc kaw pénc. xale ñu bari am nañ nag. ñu def deuxième tour am nañ de macha allah. Mm, man ñi ma xamal ñu def deuxième tour xam naa tey dinañ laa dem rek. kese booy dañ leen di laaj ndax am nga ñu naan damaa bugaan. damaa bugaan mooy aw ma. mooy deuxième tour. waaw non deuxième tour bi mooy dama maa ngi bugaan.

asret hmm. damay ci dañ ma may léegi mais mayawaat ko rek mayaat ma ko joxaat ma ko may ci yoon joxaat dañ ma kaa may ci yoon joxaat dañ ma kaa may ko may dee wax dëgg yàlla may ngoy dagg may na la lu la tey ngoy taay ngoo kilif ziar naa la ah eh, Moussa waa Moussa yaa doy waar nag. ayca kilifa. asalaamualeykum wa rahmatulah. ajaratu nabu mu sell mi. ajaratu par anticipation. amin amin yaa xajja. yàlla na leen yàlla dégg. yaa xajja nabu. <laughs> merci. mais siyaar naa la nag. delloo siyaar bu baax jaajëf def nuyoo ak internet yi sañse nga nag yow kilifa sañse nga de. man de ah. waaye. woy dama mën a sañse nag de ak nga niveau bi de sañse. kawe na de. ay te damay sañse ba màtt géej gi. <laughs> yàlla baax na kaw penc la def kaw penc moo tax man maandu naa ayca jërëjëf ajaratu moom yi merci pour la revue ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax dañuy enchaîner ak euh, ajaratu euh, Ngoné mu daal di ñëw ñun ci euh, cas sur cas tey bi ngay njëkkee mooy da ñëw ci suivi de cas ci mm-hmm. li doxoon ci diggante Sala Sow ak aw Baba Thiam waa démb euh, taxaw nañu ci euh, tribunal ginnaaw boobaak léegi bu ñu koy dégg foog naa def na ay weer mm-hmm. euh, ñu ne woon nag ki nga xam ne moom mooy Awa Baba mm-hmm. ba ñu xamante ak léegi yàgg na waaye démb dossier bi yàgg na ci tribunal correctionnel bu Ndakaaru ginnaaw itam ba nga xamee ne def nañu confrontation ba ñu renvoyé ko mais dafa am lu ci doy ndaxte mm-hmm. ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk ñëw na muy ki nga xam moo porté plainte ak ki ñu plainte waaye mbir mi dañu ko mujjee dàq na bu ndax li ko waral mooy plainte bi nga xam ne kooku di Awa Baba Thiam defoon na ko ca sûreté urbaine bu Ndakaaru euh, ginnaaw itam di euh, ñuy toppee sala li nga xam mooy injure publique diffamation ndax diffusion euh, audio yi nga xam ne gisoon nañu ko ci internet bi juge ba nag démb li tax mu dàq ko du parti ñëwul waaye dossier bi xam naa Pa Moussa ci kanam di nga ci ñëwal ndax dinaa la soxla mooy boo demee porte plainte day am procès verbal d'enquête day am audition mm-hmm. te comme na ay audio yu ni mel yooyu lépp dañ koy jël boole ko ci àndit ko ki nga xam ne moom mooy ci àtte loolee nag ba ñu ñëwee ca kanamu juge ba dee mu nekku ca woon dañ ko dindi loolu moo tax euh, juge bi daal di koy euh, daal di koy dàq di fàttali nag mbir mi mhm. euh, moom ki nga xam ne mooy aw baaba jaam sax mujjee nañ ko musoon nañ ko dugal kaaf mhm. li ko waraloon mooy dafa demoon ca commissariat central mhm. ca sûreté urbaine ndaxte dafa jékki-jékki woon ne jànqam dafa disparaître kenn gisu ko mu dem pour euh, demander ay explication ci la woowee euh, ku nekk foofee ci commissaire bi nekk sûreté urbaine. Mhm. Euh, pour wax ko ne jànqam dafa disparaître dafa génnoon di jënd am ñaari nit yu ñëw jël ko yóbbu ko ne ay takk der la ñu. Mhm. ba mu toogee gis ko itam dem na ngir daal di laajte daal mbir moom naka la demee. Mhm. bu mu demee tamit gisante na ak commissaire bi ànd ak avocat waaye ba muy ñibbi nabu dafa ñibbisi day ñëw di ñibbisi ba ci yoon bi ñu ne ko procureur ma la soxla. procureur de la République nee na nga ñëw wuyu si ko tribunal moom moo dawal otoom. Mhm. ànd ak avocat wam ñëw ba ca tribunal ba. Mhm. ba mu ñëwee ñu woote ñu ne ko toog ci salle d'attente bi di ko xaar. Mhm. ñu ne ko demal kaabu nga laajte zale ba mu demee ñu ne ko duggal ci kaabu bi kon saabu veut dire du convocation moo ko fa dugal. du plainte moo ko fa dugal. Mhm. procureur moo ko woo ba mu dawal oto ñëw ba foofu du police tam moo ko indi ba mu ñëw ñu ne ko dugal kaafu. Mhm. mooy arrestation bi nga xam doon nañu ko dégg ci jamono yële passé. Mhm. bu mu demee itam ba jàkkaarloog procureur li ko wax mooy plainte bi nga xam ne plainte nga ko ki nga joteel da koy retiré ngeen waxtaan mu nekk moom du ko retiré mu ne ko kon nag dinaa ko wax moom mu plainte ma boole dossier bi yëpp joindre ko léegi bi nga xam ne nag dem nañu démb mu mujjee bi dañ koo dàq. ndax plainte am nekku ca. audio yi ngay wax yi ñuy wax te nga xam ne mi ngi woon ci euh, procès verbal d' enquête préliminaire ba yooyu mhm. am amu ko gisuñu ko loolu moo waral ñu ki nga xam ne moom mooy juge bi daal di demander à ce que ñu daal di euh, dàq mbir mi ba mën a andi waaw ba ba jëmmi jamono mhm. euh, bu ko defee ñu daal di indi rek li nga xam ne moom mooy mbir yooyu la di fàttale ne ki nga xam ne moom la ñu toppee saaga moom ak yaayam yëpp déglu woon nañu leen donc li nga xam ne dégg nañ leen ci am na procès verbal. fekkuñu ko ci biir dossier bi gisuñu itam audio yi. Mhm. gisuñu plant bi nga xam ne itam également dame bi moom la def. moo tax juge bi daal di koy dàq. d' accord mais mais cas bi rëcc na ma de euh, lu affaire boobu nu mu ah, xam cas ci fond bi. parce que fii lañ lay updater ci plateau bi. waaw du mise mhm. euh, amoon ay jamono. Mhm. ñu déggoon amoon baaba aw baaba Thiam mi nga xam ne Wally moom lay way mm-hmm. ñoo dafa am kenn ku mu jotee ku tudd Sala mm-hmm. ba ñoom ñaar ci xew bu amoon ñuy sa am ay ojo yoo xam ne daf ko doon saagaar ak yu ni mel mu am plainte boo xam ne plainte doon na ko mm-hmm. jànq bi li ko dugal ci mbiir bi mooy dafa waxoon ne moom moo jël téléphone am pour défendre ki nga xam ne moom mooy patron am mu message Sala saaga ko wax ko mu bàyyi patron am loolu moo ko loolu moo tax mu dugg mu dugg ci mbir mi. Mhm. waaye li li li am. mooy jànq bi mooy jànq bi. biñ ko yóbbu loolu sax moo ci gën a doy waar na parce que bi ñu yóbboo bi ñu jàppee jànq bi. Mhm. ba wax ko téye da da il s'est avéré que ne jànq bi mineur la donc dañ ko bàyyi mu daal di ñibbi. loolu moo waral ne kooku kenn deferewu ko. mais li doy waar ci mbir mi du luñ jotee mais tey ki nga joteel Pa Moussa man ak yow ñu jotee. Mm. ñu dem ma déglu la ñu déglu la ñu déglu ma mm. xanaa loolee war nañ ko mën a def ci. Euh, war nañ ko mën a boole ci dossier bi. Mhm. pour juge bu ñëwee di ubbi wala muy juger mu mën a xam lan moo nekk ci dossier bi diw lan la wax kii kan la joteel nan nga mën a comprendre tey yow nga nekk ci commissariat wax ak commissaire bi di génn ñu ne la kaay wuyu procureur. Mhm. nga ñëw ñu ne la wàccal kaab après ay pression jot ñu ne la dama ñibbi. looloo looloo tax mu bëggoon a xam nu mu demee dans le fond quoi. parce que bon. Euh, li ñu jotante mooy awa. dafa am ay audio yoo xam ne dañ ko si saaga am ay audio yoo xam ne dañu wax ne moom moo ko wax ñu divulgué ko ñu génne ko moom mu porte plainte ci ko saaga procureur na ko ne retiré plainte boobu mu ne moom du ko jotee procureur ne kon dinaa wax ki nga jotee moom itam mu plainte. waaw ah, loolu tamit euh, loolu moom cest xam naa moo koy mën a moo koy mën a wax. non parce que de sa plainte. moom moo moom moo am coobare boppam retiré plainte am procureur bu bëggul poursuivre bu ko neexee euh, selon les éléments qu'il a mu classé sans suite mais même bu classé sans suite sax. Euh, ki porté woon plainte moom mën na ko obligé. mu mais procureur sax Pape Moussa daf ko war a jàppale procureur kañ moom daf ko war a jàppale waru ko wax ne retirer sa sa sa plainte. waaw ah, loolu loolu loolu loolu problème mais mais mais mais euh, PV yooyu noonu boo peut-être euh, ay éléments wu dossier bi la. bu ñu ko gisul ñu renvoyé renvoyé waat bu ñu ñëwee dañ koy àtte parce que les PV d'enquête ne lit pas le juge. Hmm. aussi bien à l'enquête préliminaire même à l'enquête ci biir juge d'instruction moom liyewu ko. Hmm. moo tax bon parfois mën na am cause de nullité. Mm-hmm. des PV doo xam bu ñu plaider cause de nullité boobu par exemple euh, ñu yóbbu la ñu porter la plainte nga dem wuy ji te sa avocat teewul. Mm-hmm. règlement 5 UEMOA nee na PV yooyu noonu baax ah. donc PV yooyu noonu mun nañ ko kii présence loolu bu amul day mm-hmm. day day annuler PV yi. bon maintenant euh, gisuñu PV yi xanaa duñ ne dafa réer. mënta leer de. Ah, ah, je je ne je te d' ni ngay waxee nii les audios là en question sont des éléments clés du dossier. Mhm. donc euh, buñ ko gisul du ma ne mënuñu ko àtte parce que lu doon doon doon audio doon preuve mën nañ ko bañ a utiliser. waaw yéen a ngi fàttali ko audio Adji Sarr. waaw pourtant utiliser wuñ ko woon ci procès ba. parce que borom audio yi ñëw. donc ah, euh, te et puis euh, dafay bokk ci. xeetu preuve yu ñuy wax en euh, matière civile présomption des faits de mais bu dekkee en matière foofu la preuve est libre mm-hmm. sincérité preuve bi ak loyauté preuve bi moom moo moom moo am solo mais type preuve bi garaawul par exemple euh, ma mi def na la dara nga bëgg am preuve ci moom nga woo ko di ko enregistré lu ne peut se prévaloir de sa propre turpitude li nga def noonu infraction la donc mënoo utiliser infraction pour prouver pour prouver effectivement mais Pape Moussa li wax ni c'est extrêmement grave que procureur na ko retiré. grave li mu wax li Ngode wax nii parce que c'est inadmissible ñu jàpp nit commissariat ñu enquête la foofu. non pas jàpp moom moo demoon pour pour plainte pour ut lu ko leer ci jànkam moom jàpp ñu ko. commissariat waaw nga dem commissariat. dafa dem pour ko téléphone ñu ne ko kaay wuyu kan moo ko woo. ko woo ku ko nekk procureur moo la soxla mu ànd ak ah, nga nga dem cave ba directement ñu dugal la si cave mais loolu c'est très grave. loolu c'est extrêmement grave Pape Moussa. non xam nga xam nga euh, procureur mën naa dajeeg yow ci mbedd bi dugal la kaaf yoon may na ko. Hmm. Euh, te bon li li la voie royale mooy ñu convoqué la selon les règles mais parfois mën nga convoqué nit du ñëw xam nga day am. Hmm. bu dee koo xamante ne joxe na garantie ne la euh, kii la yaakaar boo ko convoqué dina ñëw. bu boobaa ce serait indécent par exemple Pape Alé nga fekk muy defar pour nga jàpp yóbbu alors que boo ko convoqué woon mu ñëw mécanisme yi ñu defoon ak euh, euh, Papito Kara yàlla na ko yàlla yërëm. Euh, mécanisme yooyu noonu. bu dee koo xamante ne leer na leen boo ko appréhendé du la kii mën nga utiliser astuce yooyu noonu xam nga tey jii ni munoo ne par force convoqué am na ñoo xam boo la convoqué ñu laal donc mën na nekk mais yoon terew ko procureur daal. man li ma gën a jaaxal ci wax ji mooy procureur ne la retirer sa plainte. non c'est que Ngoné li mu dénoncé dafa nekk dafa nekk par exemple. Abidou kii bloqué fii wala. waaw dafa ah. li li li wax nii c'est extrêmement grave parce que dama bëgg a dindi nil quoi. dama bëgg dama gis mbir bi comme comme abus de pouvoir. évidemment vous avez parfaitement raison le procureur est maître des poursuites mën na xool ku ko neex mu jàpp la pour nécessité d'enquête mais maanaam li Ngoné wax nii man bi ma ci am mel ni abus de pouvoir la ñu def ci nit ki quoi maanaam dañ ko jaay dañ ko mbirum jaay doole rek. waaw mais loolu moom moom moom est-ce que amul luñ koy toppee comprendre nga léegi yow li nga wax yëpp d'accord daal. xam naa xam naa xam nga tey jii jaay doole boo fa ngóone mën na def infraction mu leer ñëpp de ngóone la en principe enquête bi moom lay concerné mais nga xam ne mami euh, Samba xam na fi ngóone ne daf ko waxut est-ce que xam nga ne yoon may na procureur mu mettre ko en garde à vue waaw pour que pour pouvoir yooyu na ngeen war a wàññi maanaam toppee wuñ ko dara de mhm. Nabou yow toppee wuñ la dara mais xam nga fi ngóone nekk ñaari ñaari affaire moo ñaari affaire seulement laisse ma préciser foofu sa garde à boobu noonu garde à yow jàllal feneen <laughs> maanaam mënul dépasser vingt quatre heures c'est que mënul dépasser vingt quatre heures parce que yow tu n'es pas poursuivi d'une infraction ki ñuy poursuivre nga xam wala ñu njortu ne procureur njortu ne mën nga ci fournir ay renseignements boobu mën na la def garde à boo xamante ne mënul weesu vingt quatre heures seulement cette dame là en question moom tamit dafa mel ni elle est soupçonnée d'infraction donc loolu moom moo waral xëy na enquete bi topp ci moom boo doo doo xam. waaw c'est ñaar ñaar moo attiré sama attention. ci li ngoon ban ak ban la. benn mooy mooy la dame dem na police pour plainte dem na di ñibbi ñu woo ko nekk kaay tribunal nga wuyu procureur ça c'est un. deuxièmement ce même procureur ne léegi da ngay sa plainte. d'accord loolu moo attiré sama attention loolu lay wane abus de pouvoir. ci ñëwaat Ibrahima jërëjëf. dañ ci gën dina ci euh, ñëwaat comme dañ koo dàkk ba jëmi jamono. xam naa ni euh, lu ci euh, tukkeewaat rek di nga.